بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokki assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh ginnaaw bi sant yàlla subhanahu wa taala julli ci yonentaami muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala suñu audio bi fekk leen ci jàmm ñaan yàlla itam mu defal ñu tawfiq wa taysir wal baraka yàlla may ñu al imaanu wa istiqaama ñëwaat nañu ànd ak yéen ci suñu rubrique wala dars bi ñu tuddee charxul usuli thalatha mooy explication bi ñuy def ci livre bi ñuy tuddee usulu thalatha ngeen ci ànd ak seen mbokk alfaqiru ilallah imam Moussa Sow ñu ngi woon ak yéen ci alqawaid al arbaa muy ñeent qaida wala ñeent pilier wala ñeent ruknu wala ñeenti mbir yoo xamante ni yu ñu war a xam la mu leer ci ñun te loolu incha allahu defoon nañu introduction bi muy muqaddima bi incha allah dañuy dugg ci charx al qaida mooy jéem a leeral yooyu nga xamante ni mooy règle générale yi nga xamante ni yàlla subhanahu wa taala wax na ko ci alquranul karim règle yooyu yàlla subhanahu wa taala moo ko wax ci alquran te tey incha allah dañuy ànd ak yéen ci alqaida al ula walqaida athaniya muy règle bi njëkk bi première règle bi buñ noppee ci loolu incha allah jël deuxième règle bi première règle bi yàlla subhanahu taala dane mbokk mu ne julit bu ne mu xam an taalama anna al kuffaara الذين قاتلهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام mooy ñi nga xamante ni mooy yéefar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon xeexal doon jihaad ak ñoom ñenn ci ñoom ñu rey leen ñeneen ñi ñu daal di tuub dugg ci diina ji ñooñu yàlla subhandaala nee na nañu xam ne ñoom dañoo saxaloon ne yàlla mooy alxaaliq moom moo bind waaye itam ñoom itam saxaloon nañ ne yàlla mooy arraziq moom mooy wërsëgal waaye itam ñoom saxaloon nañ ne allahu mooy almudabbir moom mooy soppi mbir yi mooy indi guddi jekk mu indi bëccëg jekk mu génnee weer jekk mu génnee jant waaye nag ànd ak loolu yépp taxul woo ñu dugg ci islaam waaw wa anna dalika lam yudxiluhum fi l islaam loolu nag taxul woon ñoom ñu tuub dugg ci diine ji mu islaam wa dalilu ala dalika qawluhu taala liy tegtal ci loolu nag mooy wax yàlla ji nga xamante ni moom la wax ci alquraanul karim mu ne qul man man yarzuqukum min alsamai wal ard am man yamliku alsamca wal absaara wa man yaxruju alxaya min almayt wa yuxriju almayita min alxay wa man yudabbiru alamra فسيقولون الله فقل أفلا تتقون يا سبحانه وتعالى في سورة يونس آية 31 من قل waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal yéefar yi ne leen kan moo leen di wërsëgal wërsëg wiy jóge ci kaw asamaan ak wiy jóge ci suuf kan mooy ki nga xamante ni moom mooy dégg moo moom dégg yi moo moom gis yi kan mooy ki nga xamante ni moom mooy génnee luy dund ci lu dee waaye itam mooy génnee lu dee ci luy dund kan mooy soppar ñi mbir yi boo leen laajee laaj yooyu yépp dey jàppal ne fa sa yaquluuna allah dañ lay wax ne allahu moom mooy def yooyu yépp léegi nag buñ la waxee yooyu yépp yow jaar fa ne leen fa qul afala tattaquuna ndax loolu taxul ngeen war a ragal seen boroom subhanahu wa taala waaye li am mooy loolu yëpp yóbbeewu leen ci ragal yàlla yóbbeewu leen itam ci li nga xamante ni mooy déggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ànd ak moom ci li nga xamante ni mooy diine ji ka yàlla subhanahu taala yabal nekkoon na ci woo nit ñi ñëw ci waaye ñoom dañoo def dañoo def seen weddi googu def seen yéefar ga te yàlla subhanahu taala ne woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax leen ne leen udxulu fi silmi kaafa dugg leen ci islam bi ba jeex ci tàkk waaye loolu taxul ñu dugg ci li nga xamante ne mooy islam bi le kon loolu mooy alqaida al ula mooy règle générale bu njëkk bi yàlla mu ne yéefar yi nga xamante ni doon nañu xeex ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñoom saxaloon nañ ne yàlla mooy alxaaliq moom moo bind moom mooy wërsëgal mooy soppal ñu mbir yi waaye loolu taxul ñu dugg ci li nga xamante ni moom mooy islam bi di diine bi yàlla subhanahu taala ne moom la reconnaître ëllëg yowm al qiyam inna diina inda allahi al islam ñaareelu qaida bi mooy al qaida athaniya mooy règle numéro deux mooy annahum yaquluuna annahum ay al kuffar yéefar yi dañ daan wax naan maa dacawnaahum wa tawajjahnaa ilayhim illa li talabi alqurbati walshafaaca ñoom seen xërëm yi ñu daan jaamu xërëm yi nga xamante ni dañ leen sampoon def leen yàlla muy laata hubal manaata yooyu yépp nee nañu dey maa dacawnaahum ñun daal nekkuñu woon di leen woo wa tawajjahna ilayhim wala ñuy jublu ci ñoom illa li talabil qurbati lu dul dañoo bëggoon a jaar ci ñoom pour jege yàlla subhanahu wa taala waaye itam jaar ci ñoom pour am ëllëg yowm alqiyam ashafaa muy rammug yàlla subhanahu wa taala waaw dégg nga de kon loolu moom mooy li nga xamante ni moom la ñu wax mooy ñoom loo ñu doon def liñ ci jublu mooy am rambug yàlla subhanahu wa taala waaye jaare ci seen xërëm yooyu pour jege yàlla subhanahu wa taala yàlla mu ne li nga xam ne mooy loolu li ñuy tegtalee ci alquran mooy wa dalilu qawluhu taala ci alqurba mooy li ñu doon wax ne dañuy jaamu xërëm yi pour jege yàlla yàlla subhanahu wa taala mu ne walladina ittaxadu min dunihi awliyaa ma nacbuduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار سورة الزمر آية 3 يلا سبحانه وتعالى من نيغا خامتاني دانيو جاب لنين lu dul yàlla jàppee ko péete awliya naan maa naabuduhum lii de li tax ñu leen di jaamu dañ leen di jaamu képp ngir li yuqarribuna ila llahi zulfa pour ñu jegee ñu jegee ñu maa pour ñu jegeel ñu ci yàlla subhanahu wa taala yàlla mu ne inna allaha yàlla day yaxkum baynahum moom mooy àtte ëllëg seen diggante fii ma hum fiihi yaxtalifuuna ci luñ doon wuute inna allaha yàlla day laa yahdi man huwa kaazibun kafar yàlla du jubal yàlla du jindi koo xamante ni waxkat yi lu dul dëgg la waaye yàlla itam du jubal koo xamante ni ab yéefar la dafa weddi loolu mooy li ñuy tegtalalee li ñuy tegtaloo ci li nga xamante ni mooy dalil qurba jege bi ñu wax ne dañ ko bëgg a jege yàlla ci jaareeku seen xërëm yooyu wa dalilu shafaa qawluhu taala li tegtale ci ne dañuy jege seen yàlla yooyu ne dañuy jaamu seen xërëm yooyu pour am shafaa am ramuk yàlla yàlla mu ne wa yaabuduuna min dunillahi ma la yadurruhum ñoom day dañuy jaamu walis yàlla loo xamante ni mënu leen a lor wala yanfaahum mënu leen a jëriñ itam dañuy jaamu loo xam ne mun leen a lor mënu leen a jëriñ waaye ànd ak loolu ñu naan wa yaquluuna haulaai shufaauna inda allah ànd ak loolu ñu naan yàlla yii ñuy jaamu ñoom ñooy suñu rammu ñoom ñoo ñu ràmm ëllëg yowmal qiyaam ci kanamu yàlla subhanahu wa taala loolu nag moom la yàlla wax ne loolu nekkul loo xamante ni lu leen di jëriñ la waaye itam yowmal qiyaam loolu nekkul loo xamante ni daf leen di mën a ràmm suratu yunus aya 18 mu ne wa shafaatu shafaataani shafaatun manfiya wa shafaatun musbita waaye ramu nag ñaari façon ramu moom moo am am na ci boo xamante ni man fiya la am na ci boo xamante ni musbita la mu ne fa shafaatul man fiya ma kaanat tutlabu min gayri llahi fi ma la yaqdiru alayhi illa allah shafaa man fiya bi mooy bii dax mooy ngay sàkku ramu ci loo xamante ni wala koo xamante ni la ngay sàkku ci moom ci ramu mënu ko lu dul yàlla subhanahu taala may ko ko te loolu faaw ñu bàyyi ci xel mooy léegi-léegi ngay dégg nit mu ne yow mal xiyaam bu ñu demee diw moo may rammu aha kay rammu am na de waaye day fekk loolu yàlla subhaanahu taala jox ko ndigal ci li nga xamante ni mooy mu rammu waaw almanfiya bii mooy bi yàlla subhaanahu taala dax mooy di sàkku rammu ci koo xamante ni yàlla may ko ndigal waaye itam yàlla subhanahu wa taala yowmal qiyaam du ko du ko teralee li nga xamante ne moom mooy ramm pour mu ramm ndax ramm teraanga bu yàlla defal ay jaamam la jaam bu ne nag yàlla subhanahu wa taala mën na ko defal teraanga googu suñu benn sëriñ xafizahullah daf ñu doon misaalalal ci ramm mooy lan mu ne bu ñu wàccee suñu àdduna bi yaani léegi-léegi nga dem ci benn bërëb maanaam conférence te conférence ba am ay xale yoo xamante ni dañoo amoon ay diplôme maanaam dañoo def examen ba jàll ca am ay diplôme réussir nañ ñoom ñoo dem toog ci table ba ñoom ñoo bind ñoom ñoo doon maanaam ñoom ñoo doon réviser ñoom ñoo doon tontu question yi ba examen bi génn résultat yi ñu ne ah am nga réussite sa diplôme mu ngi nii léegi nag jour examen bi jour conférence bi borom daara ji wala borom école bi pour maanaam honoré ñi nga xamante ne mooy ay invité yu mu am mu daan ne benn invité moo xam nu mu mënti du Ibrahim Muhammad wala Taala kaay kii rëy suñu élève la dafa doon def examen ba am na am na bagam wala am na lu mënti am si diplôme waaye dañoo bëggoon nga jël diplôme nga daal koy jox Taala moomu wala Ibrahim wala Muhammad moomu lan la def ci réussite xale bi dara. lu dul ne borom école bi moo ko bëgg a honoré noonu la yàlla subhanahu wa taala def ak jaamam yowmal qiyaam yàlla dafay honoré yenn ay jaamam ci nan ci ne leen rammul leen kii ngeen ànd ngeen dugg aljanna ànd ak loolu fekk na kee yàlla subhanahu wa taala dogaloon ci moom ne day dem aljanna ndax xale bi moom am na bagam ba pare bu ko kee joxee bu ko joxul moom day am bagam léegi nag kee itam dugg na aljana ba nopp yàlla nag pour teraleeg pour honorer ki nga xam mooy jaamam bile danaan ko rammul kii nga jàpp ci loxoom ngeen ànd dem aljana loolu mooy li nga xam mooy misaal bi nga xamante ne mooy bi gën a wàcc pour ñu comprendre li nga xam moom mooy ramm kon da achafa man fi ya boobu moom baaxul ndax yàlla subhanahu taala nee na loolu yowmal qiyaam mënta nekk wa dalilu qawluhu taala liy tegtal ci loolu mooy ya ayuha alladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmun la bayun fihi wala shafa la bayun fihi wala xalfun wala wala xulf la bayun fihi wala xulfa wala shafaa walkafiruna hum zalimun yàlla mu ne yéen ñi nga xam da ngeen gëm yàlla dépensé leen ci leen yàlla jox balaa bés di ñëw bés boo xamante ni jaayal njënd amu fa ramm it du fa am lu dul ko yaa su ànd jox digal te ñi nga xamante ne mooy yéefari day ñoom ñooy tonte sootu baqara am na beneen mu shafaa musbita mooy shafaa bi nga xam moo sax wa hiya allati tutlabu min allah mooy bi nga xamante dañ koy sàkku ci yàlla subhanahu wa taala wa shafiu mukramun ki nga xamante ni moom mooy ramm kooku yàlla da koo teraree bi shafaa ci mu ramm rek wal mashru'u lahu man radiya allahu qawlahu wa amaluhu baada al idni ki nga xamante ne mooy al mashru' ki ñuy ramu itam yàlla gërëm na ay waxam ak ay jëfam gannaaw ba loolu la yàlla jox ndigal ki nga xamante ne mooy ramu pour mu ramu donc kon loolu faa mu leer ki ñuy ramu moom yàlla subhaanahu wa taala gërëm na ko ba noppi waaye kii ramu itam yàlla moom moo ko teralee ramu gi rek kama qaala taala man dha alladi yashfa'u indahu illa bi idnihi yàlla mu ne ana kan mooy ramm yowmal qiyaam ci jaamam yi lu dul ku mu jox ndigal kon shafaa dafa am manfiya shafaa dafa am musbita a shafaa manfiya mooy ramm gi nga xamante ne nit ñi ñu ngi koy jàpp ne dana am te mooy bi nga xamante dañ koy sàkku ci nit te bañ koo sàkku ci yàlla subhanahu wa taala a shafaa musbita ramm gi nga xam ne moo sax mooy gi nga xamante ni yàlla subhanahu wa taala ëllëg yowmal qiyaam dana ko maanaam teralee ay jaamam yoo xamante ni ñoom ay soppeem lañ ay ay ay ay maanaam ay awliyaaw lañ léegi ñooñu nag loolu yàlla leen defal loolu teraanga la ñel leen waaye ki nga xamante ni moom la ñu ràmm itam kooku dafa nekk koo xamante ni yàlla radiya an qawlihi wa amalihi yàlla gërëm na ay waxam yàlla gërëm na ay jëfam ba nopp da koy dugal aljanna moo tax mu jaar ci kenn ko jàppal ci loxoom ngeen ànd dem aljanna kon loolu mooy darsu tay bi ñu teg foofu suñu baaraam incha allah buñ ñëwaatee ci weneen dars ànd ak yéen ci ñaari qaida yi des muy alqaida althalita walqaida ali aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimina fastaghfiruhu wa tubu alil mustaghfirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته